naxaatoo ñu de. c'est-à-dire gars yi nañu en dëgg la quoi man vraiment su affaire. suñ koy de moom. mi ngi koy def fi mu ko war a def. Mm-hmm. barki sëñ Tuubaa. non xam nga su ma nee ki mu koy. dañ ko may ma nee ki ñuy baatere mu ngi eh, Bamba Bamba ki ñuy baatere Wally Seck ngi koy def fi mu ko war a def. parce que moom mi ngi koy dimbali. mi ngi koy jox nécessité yi. barke sëñ Bamba mais ñoom ñi koy jox parce que bu ñu ko joxee Wally bu gestoo am na ñu ngi ko war a jox. Mm-hmm. mais ñoom est-ce que ñoom avant ñoo ñëw ci waar yi gëstu nañ ba xool ni am na ñu ko war a jox. waaye xanaa gisoo liñ génn léegi nee nañ papam daa feebar ba sonn. sonybu te gëj na ci kër gëj naa xam ne papam mel. loolu yëpp génn nañ ko ci te loolu yëpp noonu la di. li naan moo ci nekk di. dañuy profité dañuy profité ba sonn ma nga Saalum. loolu lañ ko wax Saalum Saalum. mais quand même bëgguma ñu blâmer ci Wally Seck parce que Wally musul toroxal nit. Wally Seck du toroxal kenn toroxalu ko sax doon ko fag moom. en daal du seer lu mu def xam na lu tax. doon ah non def nag la ah, pour jàngale wax dëgg yàlla mm-hmm. donc je pense que kuy yëgati ci seenam wala kuy def yenn yi ci seenam di nga mm-hmm. bàyyeeti xel. parce que na nekk ci yow. waaw Wally day joxe un moo tax ma ne laisser aller beeg bi xam nga loolu laay man dina dem ba léegi ku yéer a gis i nga xam fi ngay yéeg fan xam nga Mbaye si Ndiaye expliqué na na fi ne lii moo tax boucher këccëg bañ bañ Wally ba léegi ba mu tëbee tëb rek yéeg ci kaw seenam bi c'est-à-dire waale à chaque fois da lay jàngal. Uh-huh. am na loo xam ne da nga koy def ci saa la lay corriger mu jeex. Uh-huh. donc am na ci yoo xamante ne bii donc euh, mi ngi noonu je pense que son bi itam même bu fekkee ne du fi jaar bañ waale itam buy demati ci waale dina xam na muy demee ak la muy yóbbu parce que artiste la boo xam ne dafa toll ci benn dimension c'est pas le moment ñun di ko yàqal donc tey gis naa ñu bëri influenceurs yu génn wax ci xam nga ne Wally Seck daf doon donner une leçon à Sonyibou daf ko doon jox leçon. waaw donc mi ngi noonu euh, bon courage à Souhaïbou maam dañuy wax ci meneen mbir ba tey ci faramaare ni muy barito omoro ak kamom terrain ya mën daal foofu moom tamit barito moom turam sax bamba sama sañoon parce que dañu gis ni Wally Seck dafa omoro dafa génnoon ne Wally jënd na ay terrain pour waaram daan yëpp mhm. léegi barito dem ba foofu mhm. expliquer nu cas bi mais xam nga explication bi ma parce matatu ko ci parce que mën naa ne commande bi sax boo ko dee jënd bu la neexee ne maa ngi ñëwaat. Omaro mhm. da dem ci terrain ya waxaale na fa waaye ñàkk ba a jënd taxu ko faa dugg te téere yooyu téere si tey nu tëdd sax coon sekk lay doon. si tey coon sekk. si de coon sekk lay doon xale bu góor bi ci boppam moom moo yabaate. Marito moom kooku du ma sax tudd turam parce que kooku dafa reew dëgg la dafa yabaate parce que moom li muy def nii day utal Sidy Diop ay noonu te Sidy na dëgg neexut nag dafa nekk ci yoon nekk xale bu ndaw. kon Barito da ko war a utal beneen euh, yoon boo xamante ne nii muy ay vie privée jàmbur ak ay yëfi jàmbur yoo xamante ne tey ku ko dégg rek na yaatooñ ku ko dégg na yaatooñ alaaji mbay nañu waxtaan rek. li ñu nekk nekk nekk ma nekk seen jigéen paa bi lu mu wax borom terrain yi borom terrain bi lu mu wax nee na moom Barito da koo nax hmm. xamu ci dara ba mu koy fi ba muy filmé mu ngi ko romb mbam naan leen yoo xam yéen a ngi taxaw foofu hmm. ba pare dana ko Matar Diop suba teel moo fi yónni hmm. loolu la wax moo ma fi yónni pour dafa bëgg fi ay terrain léegi nag paa bi nag baritoo nax ko di ko enregistré yu kenn xamut moom turu Matar la fa dugal de ndax paa bi nee na moom du diglu Waly Seck du diglu Sidy Diop moom boppam la taal. Euh, Matar Diop suba teel kilifa la quoi. te Matar Diop suba teel kilifa la. Mm-hmm. te amut ak kenn affaire nag. Mm-hmm. ñi war a sekkal taraanga yépp mu ngi sekkal ñoom taraanga. Matar du tooñ quoi. Matar du tooñ. Sidy tamit li muy nekk nekk nekk xale. du tooñ du tooñ. Mm-hmm. man nag ku ma xam ne la man du ma mën a am lu nekk man Waly sekk ma ko gënal nëbbu ma ko làqu ko. yaa ngi dégg mais kii ci boppam day indil Sidy Diop ay noonu. Bamba mun naa laaj benn affaire. pour lan. Mawar. Mhm. waaw question moo bëgg laa posé. Mhm. lu tax suq sonn. moo ma jaaxal nag. <laughs> ah lu tax suq mooy gën a sonn da. Euh, euh, euh, mais li muy def ni sax kenn ndax kaa kenn sant ko lii magum jëmm dem waxaale ji ay yëfam yow sax yoon da cee nekk yow du yàgg sax yow ba nga am ci dara te pourtant. Waly Seck mën na koo sax humilier Waly Seck bis bu téeree yee sottee ba moom mii moom Barito dina ci am impasse dina ci impasse lu garaaw laa leen wax parce que ku magum jëm taxaw nga di ko fenloo Waly Seck li muy mayee téeree ci gën a tuuti ji mm-hmm. ab waaye ñëw bëgg ko may ko teeree mm-hmm. may ko teeree bi mu ko ko mayee mu ne ko sax foofu est desul ay teeree mu ne ko ankay mu ne ko sama waa groupe bi laa bëgg dina la damaa bëgg nga xoolal ma ko nga lu mu gaaw lu mu mën a gaaw bëgg naa est-ce que Wally Seck moom dafa waa ji da koo sexal suukar. waa ji loolu la wax. waa ji loolu la expliqué ke benn xale bu góor. Mhm. li waral affaire teere yi ñëw benn xale bu góor moo dem ci kër Wally sekk mu ne ko dama laa may teereel mambiloo. Mhm. signé Wally signé mu ne ko ba xam foofu des na ay teere am déet kooku ne ko waaw. mu ne ko ñaata mu wax ko ñaata yi mu fa soxla yëpp mu ne ko léegi damaa bëgg nga lijjantil ma loolu ndax sama waa groupe bi laa bëgg a dindal ay teendee mm-hmm. xam nga Wally Seck waa ji sexalu ko suukar mm-hmm. kon léegi baritoo moom la moo ci yoonam mais Omaro tamit kon naa publier affaire yi de mais Omaro moom def dara nekku ci <laughs> parce que moom leer na la ko carrément ne teendee yi mu ci ay loxo moo tax mu fi moo tax mu filmé ko mm. Omaro su ci amutoon dara lu ko leer ak lu ko wóor këcc du taal otom di dem te bu ko leerutoon ne tamit terrain yi këyit yi bon un jour viendra bientôt léegi mu ngi sama loxo kon barke Seexul Xadim Omaro du du du vidéo di wax mhm. lu waaye di wax rek waxal kat dem ca tey vidéo vidéo yi te ñim nekkal sant ñu ko ñooñu ngay wax. parce que Omaro vidéo na te borom terrain yi génnul. génnul mais Barito bi mu vidéo borom terrain yi dafa génn. bañ a génn parce que kii dafa mën a tooy kii dafa réew ba dof moom na lijjanti boppam góor day def yëfu góor góor day def yëfu góor yàlla gis naa ko muy saaga démb ñoom. di di wax lu ko neex mais gis nga ni dangay yaru tuuti nekk ci showbiz moom showbiz atut Bamba kii lan lay def ni Bamba léegi lii nekkul showbiz man man ma juddoo ba léegi mosuma gis façon showbiz bi. non showbiz la rek. ah <laughs> showbiz bi moom su ma ko gis barke alxuraan lépp showbiz la mais quand même man dama bañ ñu dugal ci ay kilifa. waru foon yóbbu turu Matar Diop suba teel parce que Matar Diop suba teel wax dëgg yàlla kilifa la et comme ni nu ko waxee léegi musul tooñ euh, nit la bu xam ne. Mhm. kilifala gu mat li mu doon. Mhm. Euh, moom bi mu doon dem di def affaire showbiz am yooyu. Mhm. mënoon na cee génne Matar Diop suba tey. Mhm, hmm? a moo na ko cee génne am set. waaw kay loolu rek man moo ma naqari. day utal Matar Diop ay noonu. utal Siir Diop ay noonu. te Wally Seck mënu ko humilier humilier ko yàq sax say wax la parce que Wally Seck mu ci kaso yi Wally Seck mu ci hôpital yi. Wally Seck mu ngi ci néewi ñi ñi dem ñi war a ñi dee te amuñ sax lu ñu leen yóbboo Touba <laughs> Wally Seck nga ca ñoom ñi dee ñu war leen a waa Wally Seck nga ñoom kon kooku nga bëgg koo tuutal ak nga bëgg koo weer moom yàlla moom moo koy weer moom baritoo moom tuuti na ci manquel Wally Seck d'accord ñu jàll ci leneen loo xam ne fa la ñuy tëjee bi mam Ndiaye Savon lu xew ci moom ak euh, euh, <laughs> Mame Ndeye